sallallahu alayhi wa sallam dafa indi walid ibnu mel ni ñoom ñi koy fitnaal nitu yàlla koo gis tamit fii ñi koy topp am na ñu ñu nekk ca peggam di ko fitnaal su ko defee nag kooka yàlla da koy gën di xéesee kooka di muñ tamit yàlla gën di ko xéegee loolu rek moo nekk fépp ci àdduna bi waaye ku ne awma benn fitna fu ma nekkay awma benn problème maa ngi ci jàmm kenn amu ko amul kon loolu leer na bi ci tegu mooy foofu mooy jeexilu xisib bi fii nag mooy bopp xisibu waqaal lazina laa yarjuuna yàlla ne waqaala wax na lazina ña nga xam ne laa yarjuuna ragaluñu liqaa anaa dajeeg ñun ñu nge naan law laa unsila lu taa wàccee alay naa ki ñun almalaaykatu malaaka yi ñun bëgguñ yàlla yónni nit malaaka la waroon a yónni ñoo dof aw naraa wala ñu gis rabbanaa borom suñu mu waxee ñu ne maa yónni sayduna muhammad laqad istakbaroo sama borom ne wallaahi sa dëgg-dëgg rëylu nañ fii anfusim ci mbiram seen bopp ñii ñoo rëy waxataw jéggi nañ dayo utu woon ci jéggi dayo kabiran ngay aji màgg de lafun wa nasrun murattabun la boobu ba mu waxee bi maanaa lawlaa unsila alayna al malaikatu kooku moom moom laqad istakbaru ba mu ne maanaam lawlaa nal alayna al malaikatu moom moom laqad istakbaru aw nara rabbana moom moom waxataw utuwan kabiran ñu jàng bayaan ñoo xam loolu ñu jàng balaaga su ko defee maanaam ñoom léegi yàlla ne dëgg-dëgg ñii ñoo rëy rëy nañu ba mujj nañ xeeb seen moromam nit ma yónni seen moromam nit di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu xeeb ko ne law lawla unzila alayna al malaikatu lu tax yàlla wàccee malaaka ñun soxla wuñ nit te pourtant su ma doon yónni malaaka sax jëmmi nit laa koy jox walaw jaalnaahu malakan la jaalnaahu rajulan wala labisna alayhi ma yalbisuun waaye jëmmi malaaka doomu aadama mënu koo dékku ci ni mu toll jëmmi malaaka doomu aadama attanut ko bi ci tegu tamit maanaam jéggi nañ dayoo ci mooy ak ci kàccoor bay wax ne man yàlla nañu jàkkaarloog man ma wax ak ñoom ne leen maa yónni yonantu bi ci yéen loolu xam nga ne jéggi dayo mënu ko passé moom moom wa ataw utuwan kabiran moo tax mu ne wa qaala wax na la si na ña nga xam ne laa yarjuuna ragaluñu liqaa naa dajeeg ñun ne law laa unsilu taa wàccee alay naa ki ñun almalaykatu malaaka yi aw nara wala ñu gis rabanaa borom suñu mu dindi kiiraay bi ngi jàkkaarloog moom mu wax ak ñun ne maa yónni sayduna muhammad ci yéen sama borom ne takk istakbaroo rëylu nañ wallahi sa dëgg-dëgg rëylu nañ fii anfusihim ci mbiram seen bopp waxataw jéggi nañ dayo utuwan ak jéggi dayo kabiran gu màgg de waaye dangeen ngeen bëgg gis malaaka da ngeen a yàkkamti da ngeen gis malaaka waaye bis bi ngeen gis malaaka du baax ci yéen de bis bi ngeen waree faatu benn waree dem dem ay takkaleen dem gis malaaka yaakaar naa ñaari état benn baaxul ci ci ñoom nekk fi damaa bëgg a gis malaaka da nga yaakaar malaaka wax mu ne yow ma yaraw na fàtt bi nga xam ne danañu nag laadra déet déet ñime mbégte booba déet ñi yow ma isin yi wax ñenn ngeen ñoo leen di wax ne mahjuran nga ju ne hijiran ma la luñ ak mahjuran la di luñ xaraamal jublu ila ma amiloo jëf ilaa maa amilo jëfoon nañ ko min amalin ci jëf al naahu ñi mu jël ko haba an mansuuran ba di bu ñu wisaare li ko def mooy wax ji waa Quraysh yi ak musrikuuna yu mel ni ñoom buñ ñu musaan a gis noon yi ñu jëw ji leen song si dañuy wax ne hijran mahjuran baat la muy muslu bu leen yegg si de soxla wuñ leen ñun jàmm la suñ kuddi ràcci waaye tamit keroog bis bu ñu demee tamit bay gis malaaka yi dañuy wax malaaka yi ne leen bu leen yegg si enteré wuñ leen taxaw leen foofa soxla wuñ leen hijran mahjuran kon kàddu gu naqari lay doon bi ci tegu tamit seen jëf yañ jëfoon foog ne danañ leen fay hôpitaux yiñ tabaxoon nag fuqaraaw yeeg masaakin yañ doon dimbaleeg yoon yiñ fi defaroon ak ay garab yiñ jëndoon yëpp di ko jox maanaam ñu ñu malaat ñu feebar ñi bu ñu yeggee foofa yaakaar ne ak payoor la yàlla ne déeréet ab yéefér du ma ko fay dara ci àllaaxiraat fayoon naa leen ko ci àdduna jàmm ji ma leen mayoon ngelaw li leen doon upp yooyu mënu leen ma koo fay kon amatu fi dara moo tax jëf ju nit jëf fekk gëm yàlla lalut ko payoor ga fii la ko ko yàllay fayee balaa dee waaye bu xasee dee dootul amati foofa dara moom la alquran yi wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansura kon amuñ fa dara bu ñëwee tamit malaaka yi bu ñuy ñëw beneen maanaam mi dañ leen di wax ne leen la busra yéen tey du ngeen am mbégte mbégte amu fi seen mbégte amu fi yéen daal xaraamal nañ ci yéen xijra mahjuran mooy ak xaraam ak luñ xaraamal la ci aljana yéen safara ngeen jëm xaraamal nañ ci yéen aljana bi ci tegu tamit ñu ne leen jëf yi ngeen jëfoon jiital ko maanaam lépp yàlla soppi na ko pënd mooy fay na leen ko ci àdduna fii ci àllaaxira deseetu leen fi dara kon kuy jëf na yàlla tax ngay jëf waaye boo jëfee ngi ngistal wala nga jëf ngir bëgg ku la tagg wala nga jëf te ba ngay jëf gëm yàlla ak gëm sayduna muhammad roy ko lalu ko su ko yor nga ci àdduna layam waaye àllaaxira doo fa fayeeku dara yàlla yàlla musal ñu ci lii moo tax mu ne wa wax na lazina ña nga xam ne laa yarjuuna ragaluñu liqaanaa dajeeg ñun ñu ne law laa unsilalu taa wàccee alay naa ki ñun almalaykatu malaaka yi yàlla yónni ci ñun ay malaaka bu mu yónni nit aw nara wala nga gis rabbana borom suñu mu wax ak ñun ne maa yónni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama borom ne laqad istakbaru rëylu nañ wallahi sa dëgg-dëgg rëylu nañ fi anfusihim ci mbiram seen bopp bay xeeb seen moromam nit di wut malaaka waataw jéggi nañ dayo utuwan ak jéggi dayo kabiran gu màgg bay sàkku man jàkkaarloog man ma leen ni wax ci mbiram yonantu bi yow ma yaraw na bis ba nga xam xamante nañu gis almalaakata malaaka yi danañ wax ne la busra déet ngeen di fekk déet di fekk mbégte de yow ma itin bisab keraw lil mujrimiina ñeel kàccoor yi wa yaquluna malaaka yi dañ leen wax ne hijran ak xaraam mahjuran ba de bu ñu xaraamal mooy xaraamal nañ ci yéen xal jana du ngeen dem xal jana wala wa yaquluna ñoom ñiy wax malaaka yi bañ gis ne hijran ak kiiraange mahjuran ba de bu ñu xiir bëgguñ leen a gis wa qadim naa ñu jublu ila ma amilo jëm ci li nga xam ne jëfoon nañ ko min amalin ci jëf ju baax fa jaalnaahu ñu mu jël ko haba an muy pënd mansuuran ba de bu ñu wisaare poussière bi bu ngelaw lu ñëwee wisaare ko ngelaw lu yóbbu ko ku ko mën a dagale seen jëf ju baax ja defoon te fekk yàlla taxut su boobaa tamit noona lañ koy pertee duñ ca fayeeku dara yàlla nag gannaaw bi mu waxee safaraak yooyu nga cay dem mu wax aljana moo tax mu ne asxaabul janati mbooloom waa aljana yow ma itin bisab keroog muy bisab àllaaxira xayrun ñooy